Rewmi 24 TV. ngoo ko yéen a ko gis noonu kon lébu yi jamono yi mu mel na ñi gis seen bopp bu baax a baax ci géej gi ginnaaw rek ba ñu fa jëlee bato yi fi daan nekk di leen yàqal. kon mu mel ne jamono yi lébu yi jën yi nga xamante ne gëjoon nañ koo gis lool ci géej gi jamono yi kon ñu ngi koy gis bu baax a baax ñu nga ci gis seen bopp. mu mel ne kon la ñuy wax rek mooy jamono yi ñëpp ña nga xamante ne jamono nañ ca bitim réew ngir rek doon fa ay euh, moodu moodu pare nañu pour ñëwaat ci Sénégal ndax kat li ñu gis moom mosuñu koo gis ci réewum Sénégal mu mel ne kon fi mu toll nii napp gi moom ña ngay gis seen bopp bu baax a baax mu mel ne askan bi fi mu toll nii la ñuy wax rek mooy li nga xamee ne napp gi daal dina koy commencé yàlla na rek mbay mi daal di mel noonu daal mu ko defee Sénégal mun a jëm ca kanam kon loolu la ñuy nemmeeku fii ñu wax ak yéen yi daal mu mel ne kon lébu yi daal jamono yi mu mel ne ay jën yoo xamee ne gëj nañ ko jàpp pendant ay ati ati at moom jamono yi moom la ñuy jàpp bu baax a baax kon mu mel ne fi mu toll nii kon askan bi yëpp rek am fierté ci li nga xamante ne rek ci napp gi ñu daal di koy defee noonu càmm gi ak ci mbay mi kon loolu la ñuy xaar ci ki nga xamante ne rek moom mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu mel ne daal kon fi mu toll nii Sénégal ñu bari ñu ngay wax ne rek ci yoon bi mu tegu nii ñu naa baax ginnaaw rek ba ñu nangoo suuf si waaye it nangu géej gi nangu lu bare bari ci réew mi annulé contrat yu bari kon daal euh, euh, yi moom ña ngay a a baax ci jëf ji nga xamante ne rek jumaay daal dinañ leen koy defal mu mel ni kon fi mu toll nii ña gis seen bopp bu baax di sàkku ci ñi nga ne duggoon nañ ci gaal yi dem foofu ci bitim réew ci doon ay mool ñu daal di nag mën a ñibbisiwaat ci seen réew loolee la ñaan ndax kat gis nañu ne nii mu continuer moom euh, géej nañu ko gis ndax sax ñi ngay wax ne musul am bii rek xewal nga xamante géej gi jën yi yomb lool jën yi ci baax yi nga xam ne moom la tubaab bi daan jël di yóbbu moom rek la ñuy am mu yomb lool ci ñoom fan yi yëpp ci géej gi kon moo li daal fi mu toll sant nañ Macky sant nañ ah, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre bi di Ousmane Sonko